dégg na institut Daara Serigne Ousseynou Seck ci Sénégal waaw meilleur institut pour vos enfants fii la xale di mokkale alquran ci lu kenn du lam-lame ñu yar ko ci diineem jàngal ko def ci moom yar teggin ba fa mu dem ñu xàññee ko institut daara Serigne Ousseynou Seck foofu ngay fekk jàngalekat yu gën a xarañ ci Sénégal ba pare am yërmande lool ak cofeel ci xale yi ñu ngi fii ci Thiénaba gare derrière la mairie de ba fi lañuy gungé xalé ngir mu bokku ci ñiy taxawu réew mi suba ci wàllum diide waaye ci walum xam-xamu nasaraan bu kenn du lam la pour internat bi inscription c'est soixante quinze francs mensualité trente mille yii nag mooy matériel yi nga xamné ne yi dañ koy woutal seeni doom yi inter muy benn matelas ñaari drap benn paquet savon ñaari bouteille eau de sével, benn trousse complet pour le bain 1.000 francs chaque mois pour les tresses bu dee jigéen 500 francs chaque mois bu dee góor ngir bu mën a raser ak goûter 3000 francs pour les enfants institut d'art Serigne Ousseynou Seck fii la xale yi nekkee ci ay conditions yu gën ndax dañ leen di teg ci ay bërëb yu sell di leen aar di leen yiir ba pare di leen jàngal ba fu ñu génn ñu xàññee leen ba pare di leen xamal àdduna ngir nga gën ci am ay nga ak la directrice Seyda Fatima Gueye au 77 287 39 49 pour ñi nga xam ne seen doom du internet maanaam day jàng di ñibbi inscription c'est 5000 francs mensualité 3000 ñuy les parents yi le 10 août inshallah, nous la ñu démarrer leen gaaw ndax nombre jël dañ condition pour préparer seen avenir doom institut nous Serigne Ousseynou Seck